صلوا عليه وسلموا تسليما الرحمن Mademba Sarr cellule initiative responsable communication asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ah ñi ngi leen leen sant ci seen taxawaay eh, di ndokkeel waa Asfiya ci bisu gàmmu gi ñu ñëw ah li tax ñu bëgg a waxtaan tey ci solo si mooy li jëm ci exposition bi ñu def ci gàmmu gi ndax ñaa ñetti at yëpp sëriñ bi def na ñu def exposition exposition bi tam li tax ñu koy def mooy gën a lu jëm ci gàmmu gi ci ñi nga xam ne ñu nataal photo ci la ñuy gisee lu bëri exposition boobu ñëpp xam nañu ren temu gàmmu gi moo di lislaam remède de la société maanaam société bi lépp loo xam ne am na ci jafe-jafe islam rek boo ko fa jaaree danga ci trouver solution exposition bi ñu def nag c'est à travers toute la culture euh, islamique ñu ngi ko commencé ci table boo xam ne bi tableau Mouhamed lañ ci def ci tableau Mouhamed bi maanaam jaar-jaari Mouhamed kooku ñëpp xam nañ ko waaye di def ko ba def ci ay éléments yu mu amoon ay documents yu mu yore woon ay sijaada yu mu daan jullee ay dàll ak ay armes yu mu yore woon loolu moom lañ ci def ci Mouhamed ak it def ci descendants yëpp foo mu jógee ak ñi mu jabootee yëpp moom lañ ci def ah Mouhamed nag sori na kenn mënul xaj loolu lépp dañ ko ci résumé suñ ci jógee tamit. ñu daal di jaar fi nga xam ne fa la sëriñ tarixa jaar ñu jaar ci Cheikh Omar Fouti yu fa mu jaar yëpp ak ay descendam def moom it ay jaar jaaram ay xareem fu ci nekk la taxoon mu def xare ndax it dafa daan am xare bu mu def rek am na objectif bu taxoon donc ak ba ba mu disparaître ci falaise de Bandiagara bu ñu jógee ci moom la jaar ci nga xam ne ki moom lañu ñu joxoon mu nekk ki ko war a wuutu ti war a kim ne moo tax moo mën a tasaare li mu liggéey ci tarixa bi te koobu juddoogu loolu muy Seydi Hadji Malick Sy moom mi waral gàmm comme loolu jiitu na ko ba mu ñëwee tamit mu mottali ko nañ ko yaakaaree ci woon ci moom def nag moom it fa mu jaar fa mu jànge ak lépp lu mu am ci xam-xam ak surtout li ci am solo ci Hadj Malick gannaaw ba ñu wonee famille yi mu am li ci ëppoon solo mooy li ñu wone ni mu doon liggéeyee moom dafa ne woon ah li muy liggéeyee colon colon yi mooy il préfère la plume à la hache de guerre bind ak wax kàllaam ci la defee yëpp def na li mu war a def yëpp lijjanti li mu bëgg a de lijjanti yëpp sos daara yi mu bëgg a sos yëpp ak jàkka yi ba teg fi yi mu bëgg a def yëpp ci wasifa te bal tàkkul coow amul kooku mooy Seydi Hadj Malick wane na ci ay jàngale civisme bu rëy civisme bi tam mi ko wone ci bi ñu bëgg ubbi école d'ailleurs am na ci document yi booy xool fi ñuy def exposition bi document bu muy wone bu ñuy wone képp koo xam ne war ngaa ubbi daara war ngaa def demande d'autorisation moom moo ko jiite ñëpp topp ci profité ci ñi bëgg a ubbi daara yëpp mu signé ñëpp xam nañu bu bëggee teg daara te du am coow man na ko def bu tegee jaara tamit xeex day metti rek waaye daf ko def def demande d' bi ñu jox ko gouverneur bi jox ko autorisation bi loolu mu signé ko d' accord joxe son accord ci lañ profité nag bëri na ci ay ñi ngi ciy yëpp ñu ngi ci ñu fexe ñoom it ba am daara ubbi ko joxe nañ ci tamit fi mu njëkkee fi mu njëkk ubbi def jàkk kooku itam dafa def demande d' autorisation. won leen ne dama bëgg ubbi jàkka jàkka ji pour julli ak jaamu yàlla moom lañ koy defee ñu may ko autorisation bi mu won ko ñu signé ko ci la ñu bëri jaar tamit loolu tamit wane civisme la ci civisme bi ba tey Cheikh Hadj ñu ngi koy def ci tableau yëpp tableau ci tableau exposition bi la ñu ngi koy wone fi muy defee participation ci effort de guerre à l'époque participation ñu wone xaalis bi mu njëkk a joxe ak loolu la mu toll ci ay CFA la mu dool ci atam mu joxe ko pour wane ne moom mi ngi participer ne nit war na participer ci lu nekk wane tamit ne participation bi tamit yamul ci alal ji rek ndaxit joxe na doomam di taawam di Seydi Hadji eh, Ahmed si donc loolu tam ñu ngi ko def ci exposition bi. ba ñu jógee ci moom it ñu wane ki nga xam ne kii moo jël raaya bi topp comme Serigne Babacar Sy ah moom it ñu wane ni mu wane ah unité ak la solution bi ñu naan mooy solidarité solidarité nag moom lim ko firee rek mooy daay da daayira yi donc ñëpp xam nañu daayira moom li mu ci jublu woon du dajale xaalis yëpp bu jox kër sëriñ bi li mu bëggoon mooy daayira bu ñu fa dajalee su dara amee képp ku ci am soxla muy ko feebar ñu faj ko ci ku ci am tudd te amoo mënoo amoon doole bi ñu jox ko ci mu def ku ci am xew jàmm ak salaam wala safaan it ñu jox ko ci donc loolu moom moo ko génne ba wane aussi tamit gor warul soppeeku loolu yëpp def nañ ko ci li tax mu ko wax ak bañ naan moom it mbaxaneem bu ñuul bi ak euh, boisson yi muy naan gazelle bi du ko changé joxe ci ay ay ay ay tegtal yu wóor kook it wane nañu moom it jamonoom ci tableau yi ka mu daan jaar ña mu daan jaar di bind ba tax tabaski korité yëpp nekk benn ndax yitte yam ca daan def ak fam ca daan jaar ak nam koy jaaree yëpp def nañ ko ci exposition bi pour jàngale bu ñu jógee ci moom yi ñu soo ci xaaji Mansour bi nga xam ne bii mooy ki nga xam ne ki moo noonu euh, soppe soppe soppe soppe bi lañ ko tuddoon soppi nit ñi ndax it xam-xam bi doy na waaye it lépp lu am ci yaatal ak féexal nit rek moom moo ko defoon moom xaaji Mansour ah ñi joom tam am na tableau bi mu rëy ci moom ci xam-xam yeeg yi mu bind ñu teg ci xaaji Abdou bi nga xam ne bii moom la ñu bëri gën a xam ndax euh, moo ci moom yàggul ak ñun moom mag ñi te it ki nga xam ne moo ci def 40 ans eh, it wane mbaax ga mu amoon ak ubbeeku bi ak wane ni mu amoon unicité pour que ñëpp am jàmm ak fa muy dem ci wane tarixa yi taru turux yëpp ñoo nekk benn digganteem ak ñoom kat na candum ñi mu ci jot président yi fi jot a jaar wane surtout ak euh, tarixatul muridiyya ni mu ànd ak ñoom moom it wane baax bi mu doon def ba tax amul lu dul népp nit nit woyef bi mu rëy bi mu nekk ci woyef wane nañ ko ci moom ndax gisoo ci benn mbubb bu ñu sol kooku yàllaa gis moo ko mel moom waaye ba ñuy wax dafay faral di wax rek ku toog ci suuf boo ñëwee kenn mënut laa suufeel ci kaw loolu it moom daal daa baax ni ñu ko waxee rek baaxam googu daal moom lañu def ci tablo bi ñëw ci alaaji Habib mu kenn xamul te mu nekkoon Gàmbi di wone bind ya mu bind jëmal ko ci ñi mu gëm ku dul moom muy Serigne Babacar ak yëpp def nañ ko ci ñu def ci tableau Serigne Moustapha Seydi Jamil doon taawu Serigne Babacar ak it ki nga xam ne que Jamil bi ñu ko doon wooyee waxuma la taar bi waaye liggéey ba mu liggéey ba tax mu defal ay fédération yoo xam ne loolu Serigne Moustapha lu mu jublu rek yàlla defal ko ci ndam tey te it toogul génnul deful dara toog benn toog toog benn place ne dell te loo bëgg mu fekk loo bëgg am ko moom lañ def ci tableau bi joxe ci ay exemples yu wóor ci lañ jógee nag teg ci rakami Serigne Mansour si bi fi jógee xalifa bi ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax nga xam ne kii yanjaay ga ak boo nekkee képp ku nekk moom defe ne yow kii yow dong la bëgg ku nekk ak moom rek ñu ne moom yooyu sa xarit la kooku mooy Serigne Mansour ah, ak yanjaay bi ak yit nag bëgg téere maamam bi nga xam ne bii fu mu ko toll ñu ne mi ngi koy toj ni mu ko daan defee ak it secret yi mu ci boole ñu ngi ko ci def teg ki nga xam ne nag mooy àndandoom di seexam di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Maktoum ah, di boole di ci sargal ci li ñu ko jox ne moo nekk xalif général am bi nekk fii tarixatu Tijaniya nekk koo xam ne kii it moom defe naa ne mooy euh, l'autre chose koo xam ni ki daal beneen affaire la mooy moom ah wane ci ay kéemtaan ak relation yi mu jot jox ak ba muy tukki bay dem euh, Touba ak yëpp ñu def ko ci fa mu jaar yëpp ci xam-xam ak it philosophe li mu nekk en tant que philosophe ak li nga xam ne lii c'est le marabout moderne yi mu ci génne ak texte yi mu ci def ci conférence yooyu yëpp def nañ ko ci moom teg ci nag ay rakam muy Serigne mbay si Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ci tabloom teg ci tableau ñoom euh, Maodo si ak Pape Malick si donc tableau yooyu bàyyiwuñu kenn ak beneen tableau bi tamit ñu wane Seydi Hadji Malick njabootu jigéen gi yëpp ñu teg leen ci soxna yi commencé soxna yi yëpp soxna Astuka ñoom soxna soxna ay Aïssatou Seck ñoom ñëpp maam maam maam Aïssatou Seck ñoom ñëpp teg ko ci ak ñi nga xam ne nag ñoo waral yëpp muy ñoom soxna maam Roqoy njaay maam Safetu Ndiaye ñoom ñëpp ñu def ko ci tableau tableau jigéen ñi ak seen soxna yi loolu daal moo doon solo suñu def mais ci exposition bi tamit nag yàlla def nañu defaale ci seen ay vêtements seen ay yére yére Serigne Babacar yi ñu ci mas a am ah yu Alaaji Mansour ah même am nañ ci ay ay documents yoo xam ni ñu jógee ci Sidi Ahmed si loolu daal moo doon exposition bi ak exposition numérique bi ñu def loolu lañ fi baaxee ñu sawaralu ko teg ko di rappeler rek ne gàmmu gi ren ji ñu ngi ciy sant yàlla mooy sallallahu sant yàlla ma ah di ci gërëm sunu sunu sëriñ bi fi nekk si sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine taxaw na lépp. ba tax na ah, exposition bi ñu jaarale ko ci yoon ba ñu am ci mbég bi ñu bëggee ndax nit ñi ñu ngi koy seetaan ñu am ci sawarte bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh